comme sànq yaa ngi koy wax ni euh, balaa nga am li la neex euh, ngay romb gis ay garab euh, gi dëkkuwaay bi xar dëkkuwaay bi xar kanam changé bu baax a baax a baax est-ce que du sous-entendre sous-entendre que ni da nga bëgg a amaat beneen mandat au sein de la commune. ah su ma la waxee bëgguma daa xam nga dama lay wax lu ma neex bëgg naa ko mais taxul nag ma tàggale ko ak sama sago damay teey rek bu ma comme dama bokk ci benn coalition muy coalition Benno Bokk Yaakaar ma bokk ci parti tamit bu discipline réunion parti laa jógee nii léegi. Euh, donc euh, ñu né nañu déglu parce que xam nga bu jëk ba dañuy dañuy wax ku nekk na nga dem ànd ak ku la neex bu ñu gagné ba faré ñu xol ci suñu biir kan moy nekk maire mais légui lolu amatul ki jitu moy nekk maire donc il faut que ñu jéem xol nu ñuy def euh président da fay bëgg a harmoniser yëpp euh, parce que dañu wax né légui territoire yi yëpp dañu dañu wara équitable donc dina xol nu koy harmoniser mo xam euh donc dañuy xaar ba xam lan lay décider donc lu ma bëgg bëgg damay ànd ak sama parce que 2009 je l'ai koy jël Abdoulaye Wade moo avec tout son pouvoir te terewul jël naa 2014 j'étais avec Benno Bokk Yakar, jël ko donc 2022 euh, je serai avec Benno Bokk Yakar. su dee man maa je war a jël ma jël ko c'est pas la fin du monde ni la ko j'ai toujours vécu sans l'apport d'un parti sama doole laa doon dunde donc it du changer dara ci sama vie au contraire <laughs> donc amul benn problème. comme ni nga ko waxee si biir coalition nga nekk muy Benno Bokk Yaakaar ñu gis ci biir coalition boobu noonu am ñu jóg déclaré seen candidature au sein de la commune de Golf Sud bi na bi nga xam ne ñoom ñoo a ñëw ci yenn kii mu jiite fi am ñeneen ñu nga xam ne peut-être ñoo bokk moom parti bi ñàkkul ambition dëgg la ñu déclaré seen candidature ne bëgg nañ candidature am ñeneen ñoo xam ne sax peut-être mun naa citer seen i tur comme nee na Fatou Mata jóg taxaw ni moom su sañoon day am primaire seen parti ñoom ñu xool tamit peut na candidature ba am na ay mouvement de soutien yu bëri yi de nga am par rapport ak loolu xam nga ñoom ñoo moom seen parti di xew seen parti du ma ko commenté mais man parti social bi ma bokk seen choix man la amul ñaari partie socialiste yu bëgg amul ñett ba ñu réunion dañ ne seen choix man la département Guédiawaye ba ñu dajee dañ ne man la te ñoom dëkkuñu sax golf parti socialiste golf dafa ne man la parti socialiste département ne man la donc man ama problème ci sama partie benn Bokk Yaakaar bi ma bokk itam te di ko coordonné fii golf kenn waxagul ne candidat la man tam ma am sama ngoru waxuma ne candidat la parce que tamit euh, ñun ñëpp benn lañu te ils m'ont toujours supporté donc du ma ñëw mais ken wanaguma ci ne candidat ñeena bokul na bokkul ñooñu APR lañu donc ñom def nañu sen déclaration publique légui nak dañ leen di déglu ba xam fu ñuy mujj ak seen déclaration ñun duñ ci wax parce que sen parti la euh ku wax sama parti dafa daf may metti kon duma wax parti jambour donc ñu ngi leen di sétane ba xam fu ñuy mujj ño xam bu ñuy primaire ño xam bu ñuy primaire ño xam nañuy def mais ñun kooku c'est pas notre problème ñun dal nous attendons la décision finale bu jóge ci kaw lu mu lu décision bi indi nag ñu ànd ci